Caroline moom jaanam wàcc na ba nga xam ne xool na ne am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi fi te xaj na ku leen jàppale ñu dem mu tànn leen ci seen biir ay morom jox leen dangeen di wane loo xam ne choix bi mu def ci yéen juumu ci leen koy wone nag mooy résultat yi ngeen ko mën a jox sur le plan scolaire rawante na nga nekk classe de terminale seen soxla li ngeen koy mën a faye moom lu mu séntu ci yéen maanaam ay lu ngeen koy delloo njukkal mais njukkal bi mooy ngeen réussir seen bac ansubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen baal ak di leen baal ak daba mi nga xam ne moo dajale ay ndaw yu jigéen ñëw di leen jox ay kit pour jàppale waajur yi si ubbitu école bi dafa don loh, xamante ni dafa am solo si waajur ndax moo ñuy dimbali si lu bari même tamit di dimbali suñu waajur yi ndax donc doonuñu ñun la am si ay ndaw au moins ñoy am nañ suñu rak tamit té li mu def dina lay mëna dimbali sa que mu wàññi financement bi ay yoy ñoo koy sant bu baax di ko té diko ñaanal que lim bëgg ci li yalla nako bi defa ci bak cheikhul bismillahir rahmanir rahim rabbi sarah li sadri wa yassir li amri waxlu lon ko tam lisaan yëfuwul xawal ma ngi nuyu tata daba bu baax di nuyu représentant mi nek fi yépp ak ñu ko jàppale yépp di ko ñaanal yàlla yokk ko ba li mu mën mu gën ko mën su ëllëgee et aussi ñun ñi mu koy defal ñu réussir ba ëllëg ñu koy ñu koy defal suñu ñeneen doom ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla yokk ko mu gën koo mën. waaw man Mbacke Faye laa tudd waaw di magu Daba Caroline waaw ñoo bokk ndey ak baay waaw ah. wax yàlla suñu xool sedd na xale yi fi ñëwoon ni seen xool sedd na seen parents itam wax dëgg nee nañ ma kontaan nañ xanaa di leen ñaanal rek moom mi ko def lu mu mën ren rek bu déwénee mu mën téeméer ca xale yi nga xam ne ñoom lañ ko doon defal ñu leen di ñaanal réussite yàlla def ñoom ñëpp ñu am bag toog ba ñoom it ñu koy fay seeni rakk ak seeni doom comme moom ni mu leen ko defalee rek. lii mu def ñun ñii di magam kontaan nañ ci ndax euh, am na ñu dëkk Jurbel ñu ngi fi. xeyna na mën nañ ko defuñu ko mom xalaat nako bam koy xalaat sax yeguñu tinuñu wax dëgg yàlla moom macha allah am na ci famim ak ak ci ay rakam ak magam mom euh, kenn sax la mag <laughs> waaw presque mom moy moy bu jigen bi mang mom la sama yaay am jigen waaw am magam bu góor mom moy rak mom mom moy rak waaw di ñaanal rek li nga xamne def nako rek yalla gën ko ko mënal ak borom këram Ousmane waaw ndax euh, gis nañ ci moom loo xam ne xalaat xalaatam rafet na Mansour mi nga xam ne moo jóge dakaar itam di ko ci jàppale xalaat seen xalaat rafet na ndax nee na duñ seetaan xale yi benn yoon ni ñu ko defee dinañ ko gën a def di leen gën a jàppale ba xale yi fa ñu bëgg àgg yàlla àggale leen fa duñ leen mës a seetaan di leen ñaanal rek ñu gën a góorlu Euh, ci seen moyenne ak seen euh, li ñuy jàng daal nañ ci gën a góorgóorlu daal ñu ngi leen di ñaanal waaw di leen ñaanal rek yàlla jàppale leen ca kaw ca kanam moom it di ko ñaanal moom Daba Caroline yàlla jàppale ko li mu mën moo ko euh, borom këram yàlla jàppale leen ca kaw ca kanam. bon là c'était la deuxième édition euh, de remise des kits pour des jeunes filles qu'on accompagne depuis deux ans à Diourbel donc c'est un projet initié par Tata Daba Caroline Faye, vivant en France. Le projet donc, euh, dont je suis le chargé ici au Sénégal. Donc, je me présente, mon nom c'est Elman Sourniaï. Donc, je suis le coordinateur de ce, projet. Je suis coach de développement personnel et aussi assistant psychosocial. Donc, je suis venu aujourd'hui à Durbel pour cette remise donc, des, kits et essayer donc de voir avec les filles comment on peut les accompagner pour un suivi beaucoup plus, euh, donc, beaucoup plus proche avec eux pour pouvoir aussi les pousser, les booster, les motiver donc, à avoir des résultats escomptés, c'est-à-dire euh, le bac. Donc, euh, ça, c'est la deuxième édition. Donc, c'est depuis l'année dernière. Donc, ça, c'est la deuxième édition de remise des kits. On les accompagne depuis la première. Et cette année, elles font la terminale. Donc, en même temps, on garde le contact, on essaie de les orienter, on les aide aussi. Nous sommes des aussi en même temps. On leur paye des professeurs pour des cours de renforcement. Voilà, c'est juste ça. Donc, on veut la réussite totale. Parce qu'après, nous voulons profiter aussi du projet. Bon, le choix des filles, parce qu'on voit que c'est la couche la plus vulnérable. On voit aussi qu'en ce moment, avec l'autonomisation des femmes,